باقي ما غير حامد كل نسو جاه ودفع لا ورتي فاه أرباب خير أرباب بديره لي باخي ميره كل سجاء لا ورته فاو لا ورتي فاو نهم الكمات نكن دايره بتوبا تريسه دايره مفاسي في البصري ñu jógee fa fas yéene màggal si màggal sëñ Tuubaa Mbàkke gi loolu daal mooy ñuy yëkkati woon. bi ngeen di ñëw ñëw bi yomboon na. non yomb na yombut wante tubaarkàlla mbirum sëñ Tuubaa moom dara jafewu ci képp koo xam ne da ngaa jóg rek te sëñ Tuubaa tax laa jóg moom wax dëgg yàlla sa lépp day yomb. mu ne monde bi yëpp nit taalibe na fa lépp liggéeyu sëñ bi la kon nag lu waay jàppoon da nga ko war a bàyyi ñëw teewee màggal ak foo mën a nekk ak ci loo mën a nekk nag. ci bon nombre ngeen doon bi ngeen di ñëw jàpp ngeen ci xayma. bari woon nañ te ndax wàcc nañ ñaari kaamil ci avion bi jàng ay xas xasida yu bari ci biir avion bi def xatm bi waa matoon nañ daal ay à peu près soixante-dix. sëriñ bi baaxee nu ci yërmandeem moom ak i xéewalam ak nar nu mucc tey ak ëllëg ba tax mu di liggéey loo liggéey bii nuy liggéey nga xam ne lu man ñaar fukki at ak nangam ñoo ngi ci nii rek lañ koy def bu nu jógee Italie jëm Bruxelles xasida ak alxuraan la ñuy jàng wala alxuraan ak xasida ba yegg Bruxelles bu nu wàccee Bruxelles xasida ak alxuraan la ñuy jàng lu doy waar a ngi noonu barki démb yéen ñëpp dégg ngeen problème bi am Bruxelles ñu di ko jiñ lislaam kon buñ fa mënee jaar noonu di fa doxee num nu soobee dañoo xam ne maga ci suñu gannaaw maga nekk ci suñu gannaaw borom loxo bu gudd waaye du sunuy jëm kon nun ñëpp la boole takk ngeen dégg ñu naan ña nga ca biir waaye nag ahmadul xadim xaadimul Mustafa mii nu yaakaar tey ak ëllëg moo nu fa jiisal nooye la lépp nu yegg fa di ko doxe ni nu soobe ba ba wol bu mag bi départ ñu àndaat ci biir wol bi yëg ci biir wol bi di juuyoo ak ñoom ci biir ñuy ñuy maanaam ñuy séddale li ñuy séddale ñuy séddale li ñuy séddale ba ñoom ñu mujj li ñuy def convaincre leen convaincre ko xam ne gii kenn ku nekk da ca mujj be kon loolu xam ngeen ne du sunu yëf waaye kii muy doon yëfam nag da ko taw kon Ahmadou Bamba mii nga xam ne moom la ñuy liggéeyal moo tax may wax ne lu ne mën naa am lu ne dees na ko gisee parce que cérémonie officielle foo dem fekk ko fa jàngal xuraan ak xasida foo dem fekk ko fa waaye nag vol bi naaw ba atri nekk ci kaw asamaan si ñu tas kaamilu alxuraan loolu Ahmadul Xadim rek la ko yàlla jagleel ku mu neex am nga ndimbal tey ak ëllëg ku mu naqari duutoo noppalu yàlla dogal loolu coobare yi sunu la. kon Mbacke noo ngi lay siyaar bu baax a baax ci sa teewaay gii di siyaar it sa kilifa di sa jawrin di sa lépp di sëriñ Maam Mor Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada di ñaan yàlla yàggal ko fi lool Mbacke te wéral ko te yeggale yéenem ndax moom day Mbacke sunu jëmm yu xeebu yi ak liggéey bii nuy liggéey ñor gum ko ñor a tax jamono bu ne mu ne jëmmam moo ko ci doy waaye nag yaay jëmmam. ndax ndaw lu nekk day présenté ki nga xam ne kii moom la ko yabal kon tey yaa fi Serigne Mame Mor moom Cheikh Mamadou Mourtala yaa fi Serigne kon Mbàkke noo ngi lay siyaar baax a baax di am mbégte ci sa jotaay bii sadi lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay jasata dayra lii xutamayra fal tak fi jawraaya liman yuraayi أنت زيالة من الدلال وبالحلال قل جراي قني تابا قل كتابا واقبل متابا يا ستراي يا خير ربي خير المربي tayeb ta xal bi de tidaay. nee na sëriñ bi daal moom sant na bu baax a baax a baax. ndax seen teewaay bii li ngeen def kat amul lu ko gën a rëy. nee xam ne moom len jëf amul dara lu ko gën a rëy. nit ñi ñu ngi wàcc ci leneen. nee na ndax it nit ñii ñi ngi wàcc ci leneen waaye yéen nag da ngeen a wàcc ngir ñëw ci bisub sëriñ Tuubaa bi nee na nun ñii nag danoo wàcc ngir ñëw ci bisub sëriñ bi

leen sëñ bi ñaan tàllal leen loxo yi te naan amiin amiin amiin Mbacke amiin amiin